discours de Wally Seck ku jiitu nag coow dina bëri sa kaw donte sol na fi daal polémique bi bëri kenn ku nekk di wax si moom mu génnee euh, setal garam li ñaari kii patati mu njëkk a génn wax ci génnaat ci mu am sax ñoo xam ne nañ Mame Makhtar euh, dafay jël souvent mel ni kuy euh, dóor ay xeer ki nga xam ne mooy Wally Ballago Seck en tant que membre yow nan nga gisee sorti yi nga xam ne def na ko Mame waaw mais xam nga xam nga man maay man maay nekk Jamra nekk xale. Mhm. ñu jox ma wàllu showbiz bi. ñu jox ma wàllu loo xam ne. lu mag mënul xale mën na ko. Mhm. fi may dugg xale dafa dugg Pa Matar du dugg ci concert. Pa Matar du dugg ci soirée. ba wax polémique daal di amee daal di daal di daal di ma jàpp soo ñaam. Mhm. ma capturé daal di foto ko yónnee ko Pa Pape Matar ne ma daal lii compte daal la góor jigéen. ok sama yoon nekkul ci. ok macha allah wax ni sama yoon nekkul parce que te li mu wax looloo am. yoonam nekk te li mu wax moo am. te Pape Matar nekkul nekkul nit koo xam ne. nit ku neex a yóbbu la. nekkul nit koo xam ne la ko ku bon la koo xam ne nit kuy doxal diine la. nit ku bëgg diine la nit ku fonk diine la nit ku xam diine la nit ku nu bëgg la nit ku nit ku nu ràññee la. muy nit ku am valeur nit ku xam boppam nit ku xam nit nit nit ku nit bu xam moom mooy kan. mënul mënul bañ waali ci àddina ndax doomam la mënta sip waali ci àdduna parce que mm. doom la ñuy wax ñoo xamul mm-hmm. Pa Matar ak waali ay xarit lañ mm-hmm. Pa Matar ak waali dañuy déggante Pa Matar ak waali ay papa ak doom la mm-hmm. ki ñaan mënu ci am am na droit wax ci doom lii ak lii ak lii ba mu capturé daal lii xool ko dañuy lii amul te dañuy amul te dafa taxaw asbe ne yorom la ki te ni mu ko waxee eh, effectivement ne loolu yorom la ki Pa Matar nit ku dëggu nit ku baax la ñu nag am nañ droit waxal ki ñu nekkal am nañ droit ànd ki ñu nekkal am nañ droit yërëm ku ñu nekkal am nañ droit di wax kii ñu àndal muy balaa ko Seck nit bu toll fent fi nit ñu bëgg ko mm-hmm. nit ñi yërëm ko mm-hmm. am ñu ko bëgg mm-hmm. am ñu ko bañ am ñoo xam ne bëgguñu ko tey loolu boo amee tey am nañ droit wax ci moom ñun ñi kat di àndandoom ñun ñi di ay xaritam ñun ñi di wax ci moom lu baax am nañ droit ne ko del def attention parce que tey ku la laal la ku la saaka ñun la saaka ku la dóor ñun la dóor parce que ginnaaw yàlla waali bi doo doo nit ku ndaw waali tëgg nga Bercy tëgg Zénith tëgg fu nit yi tëgg ci àdduna tëgg nga fa àjjana da nga tëggul te incha allah bu yàlla defee ba nga génn àddina te ñaanuma yàlla nga génn àddina mm-hmm. xanaa mu yàgg a yàgg a yàgg nga dëgg foofu kon xam nit bu demee ci bu tolloo niveau boobu mm-hmm. xam nga ne suñu borom moo teg ni nga mel yàlla moo la ko teg mm-hmm. nit ñi nañ moom it nañ bàyyi xel nit ñun ñi ko laal dañuy laal tey ñuy wax ci waaye lu ko wax parce que ñun lay àndal ñi wax waaye lu bon ci ñun lay àndal ci ñun lay àndal parce que ni ñu ànd ak moom mooy dëgg bu dee am na ay xarit yoo xam ne dëggu la ci ñoom mhm. man tey waali ku ko laal nag mooy daal parce que nit ku bëgg ay waajuram nit ku la saaga amul solo nit ku bëgg ay waajuram nit ku la toroxal amul solo mhm. bëgg say waajur avant tout mooy lépp ma dimbali ko mhm. xarit amatul ci àddina des fois nit dina reetaan te siiñul des fois nit dina siiñ te du reetaan man moom laay moom laay gën a dolli. Hmm. moo xam ne nekkul nekkatul nit ku ndaw. moo xam ne suñu borom moo ko teg nii mu am suñu borom moo ko may. Hmm. na gën a ñaax boppam. Hmm. na gën a vigilant. des fois nit ñëw ci moom wax ci moom lu bon. taxaw ci mbedd bi xas ko xas yu méttee métti. nga jël sa xol bu rafet. ak sa yërmande xëccaat ko ña amaana suba mën na laa xasaat. amaana suba mën naa waxaat caw lu bon. amaana suba mën naa waxaat caw loo xam ne nit ñi dalay lay xeeb. na nga na nga méfio nañ bañ tuddee la président Wari dem nañ bañ tuddee la da nga da nga am mais maytul ñu coup d'état la moom Wali maytul ñu coup d'état la yow dañu gis ko maytul ñu coup d'état parce que xarit amul ku la ku la yërëm amul kenn laay xam ne ci àddina buñ ko tegoon ay xeer pisale mété nekk boo rey waale dem àjjana kon du rey waale safara la jëm muy jabaram ak ay doomam ak yaayam ak ay rakkam ok barke Seydouna Mouhamad des fois nit di ànd ak yow. Mhm. nit des fois du ah, nit des fois di ànd ak yow pour sa tur pour sa alal pour sa succès pour sa xew soo génnee mu yàq la mhm. day ñaan yàlla sa guddi waal yàlla na xeewi mhm. day ñaan yàlla sa guddi yàlla waale yàlla nañ ko tëj day ñaan yàlla guddi waale yàlla na yàlla na trop te amaana loolu du ànd dama koy dimbali mu xam moom xam mooy kan ñi ko bëgg na téye ñi ko bëgg na tuwaale xàmmeel ku ko bëgg xàmmeel ku ko bañ na téye ay nitam ñu ko fonk na téye ay nitam ñu ko bëgg parce que bëgg nit yombul bëgg sa moroomu góor yombul nit ñi bu la bëggee ba coow cofeel yaayam gënul suñuy ay yërmande la ñu ànd ak moom mm-hmm. fulla la ñu ànd ak moom mm-hmm. ngor la ñu ànd ak moom sutur la ñu ànd am na ñoo xam ne àndul la ñoom waaye tax dara mm-hmm. succès la ñu moom oto bu rafet visa tukki gel jabar yàq deram la ñu ànd ak moom am tur des fois man des fois man damay xool man damay xool ay reetaan damay jàpp barke Seydina Muhammad billaahi wallaahi laala mm. des fois nit tiim ko di ko tagg ma xa ma xam ni kii mës na bés mën mës na toog mm. mu tiim ko ci télé wax ci moom lu ñaaw loo xam ne te dootul xewi ci àddina te loolu loo xam ne dootul deñ ku la mën a xas suba mm. mën laa tagg tey mm-hmm. jàppal ñaari wax yooyu yëpp ngay déggaate sa xaj nga xam ne kii mën maa wax lu rafet di soo mën na maa xas mm-hmm. te ànd ak wàllu yombu ànd ak bàyyi du lu ndaw parce que lépp ngay dégg ñun ñu ne doo bàyyi lépp di ànd ak moom te yàlla rek tax du alal du succès parce que yàlla may na ma loolu man yàlla may na ma succès mm. yàlla may na ma xew tey boo tapé youtube da ngay gis Pawlish boo tapé youtube da ngay gis mm. barke Seydina Muhammad mm. boo tapé bu Wally yuuxoo ñu ne Pawlish eh, su Wally jàddee ñu ne Pawlish eh. mm-hmm. bu Wally jàddee ñu ne yuuxoo Wally eh, su ma jàddee ñu ne Pawlish ngi ne parce que yàlla moo def loolu mm-hmm. kon man ànd ànd ma moom ñu jàmm waaye dafa ñëw toll na waaye dafa toll foo xam ne bu ko nit tooñee na ko baal bu ko nit xasee na ko waale baal bu ko nit saagaa na ko waale baal na ko waale baal parce que waale fu mu toll na ñëwul pour xeex ak mm. nit la suñu ko def lii mu am na yàlla moo ko mu am yàlla moo ko may ci àddina moom na xam boppam bu ni ñii mm. lu mu am nitam ma ko may surtout ay nitam ñun ñoo ko may des fois nit jógee fële mm. waali wax ci moom lu bon xëy suba ànd ak moom di ko taggal say maam kooku nga foo nekkul naa feex ko nga xam ne tey bu xuloo waaye di ko xasaat parce que tey moom mu ngi ko doon xas tey gis mu ànd ak ànd dafa doy waar moo tax ma ne ko dem nañ dem nañ seeni gouvernement te gouvernement waali mhm. bëri na ay nettalikat gouvernement Wali. te yow cité wuñ la si. non man non man amoo problème. te bokkul ci non man man man Sonko la. ça montre que ne dëgg la li nga. man Sonko la man yaa man yaa dafa def man kii la. ok gouvernement bi am na ay seytaane am na ay waxkat. déggoo wax. gouvernement bi daa bëri kenn daal laa ci cité da duñ wax. muy jabaram. <laughs> premier dame. Mm-hmm. kooku daal xam naa ne a na laa muy koo xam naa ne bëgg na président bi. Mm-hmm. xam naa ne du ko coup d'état mm-hmm. xam naa ni du wax ci moom lu bon mm-hmm. xam naa ni du wax ci moom lu ñaaw parce que moom jabaru président du du coup d'état jabaram du coup d'état jëkkëram mais amaana tey ñi ko wër ñëpp ñu te bu a téye sa laamin am lu ko que waxe nguur daa am lu ko téye waxi nguur daa am lu ko téye mu ñu jigéen ni la bu ñu góor ñi wax da nga koy téye des fois nga gis ko jigéen ñu fal la poste bi yaa dàq wax xar yaa dàq wax bëy fu wax ñëwee nga wax fu tourné waxee nga wax nettali nga wax foo dëkk nga wax noo tudd nga wax di wax lépp nga wax ci àddina loolu état àndewu loolu ak nit ak nit état àndewu loolu nit ak nit état daa am wax yoo xam ne waxe benn la nit da koy suturaal dafa wax yoo xam ne wax war sa génne nit da koy suturaal état te bëgguma ñu kundee taa ko mhm. te mm-hmm. bëgguma ñu ku ne daa ko de. mais mais mais sàcc rek. est-ce que est-ce que du liñ la nomewul ci ci nguur gi moo tax ngay ngay sànni xeer man su su su ma liggéey ba retraité ba yàlla def ma retraité am ci lépp amaana doolatuma dalay poste amaana maa ngi wax du lay poste parce que am nañ liggéey fu ne ci àdduna du poste te ma lenn su ma liggéey man dañ may liggéey mais mais yaa ngi wax léegi point bu am solo maanaam kër nit ku siiw ñu dem ba teg gouvernement koo xam ne lu xew sa kër nit génne ko léegi bu njëkkoon waa li lu bëri day xew këram kenn du ko gis mais léegi dañu gis yu bëri dañ koy ba muy tukki barki Demba Ndiaye dugal nañ ko ci internet bi ah, que xam li problème bi dafa def lu man la gouvernement bi am na ay seytaane am na ay waxkat déggoo ma ne yóbbukatu wax gouvernement bi daa bëri kenn daal laa ci cité da duñu wax muy jabaram premier dame mm-hmm. kooku daal xam naa ne téye na làmmiñ koo xam naa ne bëgg na président bi mm-hmm. xam naa ne du ko coup d'état mhm. xam naa ne du wax ci moom mhm. du wax parce que moom jabaru président du du coup d'état jabaram du coup d'état jëkkëram mais amaana tey ñi ko wër ñëpp buñ tagoon ko parce que jaamu loolu seen intérêt jaamu loolu xaay te président booy ànd moom da war a téye sa am sutura am tekk parce que waxi waxi état a génn te te ci bari seen laamin téewuñu ko ñu ci bari ay nettali kan ñu ci bari ñu xool kër président ñu génn wax président yi ñu ngi koy foto ñu génne ko te président bi lu mu sol nii waxee ko te président wax waxi nguur daa am lu ko téye waxi nguur daa am lu ko respecté waxi nguur dañ koy réglé waxi nguur dañ koy téye mu ñu jigéen ñi mu ñu góor ñi wax dañ koy téye des fois nga gis ko jigéen ñu fan la poste bi yaa dàq wax xar yaa dàq wax bëy fu wax ñëwee nga wax fu tunne waxee nga wax nettali nga wax foo dëkk nga wax noo tudd nga wax di wax lépp nga wax ci àddina loolu état àndewu loolu ak nit ak nit état àndewu loolu nit ak nit état daa am wax yoo xam ne waxi benn la nit da koy suturaal dafa wax yoo xam ne wax war ta génne ñu dëkk si tax état te bëgguma ñu coup d'état ko mhm. Mhm. Mhm. te bëgguma ñu ko de damay bañ ñu coup d'état mais ma sàcc rek est-ce que est-ce que du Pawlish liñ la ci ci ci ci ci ci ci nguur gi moo tax ngay ngay sànni xeer quand même man su su su ma liggéey ba retraité ba yàlla def ma retraite am ci lépp amaana doolatuma danay poste amaana maa ngi wax du lay am nañ ma lenn su waxoon ñëwoon dugg këram ku siiw ñu dem ba teg gouvernement koo xam ne lu xew sa kër nit génne ko léegi bu njëkkoon waa li lu bëri day xew këram kenn du ko gis mais léegi dañ koy publier même tuddeen ba muy tukki barki demoo Njaay dugal nañ ko ci internet bi ah, parce que xam li problème bi hmm. dafa am dafa am ñu ci rax ñoo xam ne teewuñu seen i loxo teewuñu seen làmmiñ teewuñu seen téléphone lépp lañuy génne te ñoom duñu si def seen yaay mhm. duñu si seen papa yi duñu si seen waa kër lépp lañuy génne moo tax mu demee noonu waaye waaye ñoom te ñoom liggéey bi ñuy def moo gën a ñàkk classe ci àddina mhm. non yal na leen yàlla suturaal man daal état lay bañ ñu coup d'état ko te état moom daa war a téye sa làmmiñ état ànd moom da war a réglé a téye say lépp moom da far fenn état ànd moom bu tëddee nga tëdd bu nelaw nga nelaw état ànd moom da ngay mais état bu waxee nga génn wax ci teg ko fële état buy añ nga génn photo yi teg fa kon pour pour daal di koy coup day yomb pour daal di koy coup d'état day yomb nañ xool seen kii bi nañ xool seen nu nañ xool seen gouvernement gouvernement bu bu nekk état bu ko nettali de te ñu daa bëri de ñoo bëri a bëri a daa war a téye sa làmmiñ état moom da war a réglé état ànd ak moom da nga war a lépp mm-hmm. état ànd wax ci teg ko fële mm-hmm. état buy añ nga génn photo yi teg fa kon pour pour daal koy coup d'état yomb bu daal di coup d'état day am nañ xool seen kii bi nañ xool seen. gouvernement nañ xool seen gouvernement gouvernement bëggul bu nekk état bëggul nettali de. te ñi fay nettali daa bëri de. ñoo bëri barki Seydou nettalikat yaa gën a bëri nettalikat yaa gën a bëri. ci gouvernement bi. laa ilaha illallah xanaa état bay muus rek président bay muus xam li mu xam xam li mu président bi nante la mm-hmm. président bi nante la ku ne xam na kuy netti ak kuy wax lu bon ak kuy wax lu bon mm. des fois nga def sa gouvernement foo ne yaa ci ne mm. foog ne yow nekkoo sax deuxième kii deuxième kii bëgg néeg bëgg état état yombul de <laughs> état nag am na ñuy waxal bu guddi jotee état am na ñu muy bu guddi jotee état am na ñoo xam ne état am nay conseil xam sa bopp tey bu àdduna tukki tey dama koy téemal armée laaj moom mais am na ñoo xam ne waxtaan bii naxtaan nii rek tey dañuy bañ ñu coup d'état pour te état waxtaan état am kersa si lépp day am état secret léegi point boobu leer parce que léegi tey li ñu am ci euh, li ñu dase bi gouvernement bi leeral euh, Pawlish beneen point tamit boo xam ne ah, euh, muy le cas de Dabou Dash dafa génnoon jëlal défense Wally Seck ci daal yeeg ba wax si Mame Makhtar man dama bëgg a bokk Jamra gis euh, mu ne Pawlish xam na sax góor jigéen yi rek mën na régler loolu bi nga ko waxoon dina woon la góor jigéen nekk ak yooyu petit préta xaaral vidéo bi am naa ko dafa mel ni waaw may ñu ko tëri ñu waaw dañuy bëgg lépp rek muy muy leer vidéo bi man tey yi euh, gis ko sur le net. Mm-hmm. muy wax muy wax lu mel noonu. <laughs> <laughs> bon yow moom euh, tey sama laa ko gis suñu ay naataango dugal ko donc ñu déglu lu lu wax. Pawlish mi xam na lépp moom xam na góor jigéen ñëpp man ñi boo ma woowee jox ma carte jàmbur ma ñoo xeex ko ndax man xam nga ni man sama bëgg góor bu amatul fii ñun suñuy doom man sama doom bu jigéen rek comme léegi léegi la mu ne Pawlish xam na góor jigéen ñi waaw <laughs> léegi euh, léegi man di xaw ma ban sens ko jëlee waaw waaw moo tax duñ ci waaye moo tax man dama ci mën a avancé bu baax a baax peut-être muy tooñ aussi ma ban sens ko parce maa ngi moom bokkuñu yéen ni mm-hmm. amaan na sequma moom yéen ni ñamuñ ci waaw sérieusement du ma mën a wax ci mm-hmm. vidéo la jublu amaan na mën ah. wax ci na lu baax parce que doon défendre Wally Seck si ah, xool ba baax parce que kilifa la ci dëkk beeg yooyu noonu ah, di am information yi bëgg naa bokk Jamra man nabu daal waaye nag si la nag mais man nabu xam naa ni yabuma